Chef Aïda. yaay chef ci sa kër ak sa biir Chef Aïda. moom la ñëpp doon si woon la neex. mbuutaal Chef Aïda ñamal gis bokk ci mayonnaise chef Aïda rek ci goût qualité sécurité ak hygiène amul dendandoo ci mim réew yaay chef ce fai da Ai di, ai da Mai m-am mutat ce fai da Ai di, ai da Tu te muta ce fai da Muta ce fai da Mă mă sa pe lilac Să duge ce să cin Eu păi tacăm ticu Ai di, ai da Mai m-am mutat ce fai da Ai di, ai da Tu te muta ce fai da Mutat ce fai da? Ne-am alzat? ID Aida ID ID Aida Aida malu le burger ID Aida ma burger chef Aida Mayo chef Aida siapa ya masih jeun moni munehe nono lako chef. Aïcha muy ah, une bonne cuisine se signale à l'odeur que dégage la marmite qui bout Olof Ndiaye nee na cin su naré neex su baxee xéñ bak ba jib lu bess tak muy lan OZ Stream di plateforme bo xamné daf lay permettre nga mën sétane say film ban film bép produit buy daw Pikini Production notamment famille sénégalaise saison 3 bi. ak sen série bu bess boobu di nitu intérêt saison 1 kep ku ko bëgg sétane

ci plateforme boobu ñuy wax OZ Stream ak seen série nitu intérêt saison 1 ay ca daw leen gaaw. dafa bëgg àdduna àdduna bëgg ko yàlla yàtt ko taar tàkk ko benn wurus la wurusu ngàllam la. 그려둬야 아. À. tey la tey nag buru wa dem na këng waxuma dem dencaale lu waaye doon jaay tey molom tey daal lépp leer lépp ñor xomb mbaa lépp jaaree fa xam ku ne dem xale yi seen ab jonge dañ koo sëlmoo rek xanaa ndaw si lu ñàkk njëriñ ñàkk njëriñ war a mën a nuyu waa ji nag jour anniversaire am nga ñëw jox ko loxo biis ko ah loolu koy yomb Allô. waaw papitu Allô, sëñ Abdou waaw papitu yaa may dégg Mané fu ngén toll Fait bi dama la koy filmer en direct Nuyo bi dang koy am live en direct ana ndaw si wurus ci guñ ba légui. mais par contre moom pend wurus gul. ah dé, néwuma dem tok. Waji waru ko fa jitu kat waji dafa war ñew fekk ko mom mu tok, mo fa war jitu waji. D'accord ba. Ba soñu ko ah man fi la mën yam de sonu na nak gaaw leen libéré ma ngeen dem ma dem ah li met ma ngi melni ku ne si mat fimne mu ne na ma ngi lay dégg. léegi ñu lan la. Serigne Mor Diop laa doon waxal nee na Samba Tali leen jiitu ci xew mi. maa ñëwagul. ah doo réglé ma takk léegi. waaw oh, gaawal nag il faut ma pare doo xaar ko. li mu wadd doo xaar ah. wala man sax lii xaw ma ay am réew la xaw ma. ba yaay bàyyi bàyyi. que doo leen bàyyi ma jàppale leen. merci merci bàyyi. tey moom Samba Tali du ma rëcc nuyoo rek. waaw Oulaye léegi nag nooy def. xam nga ne nan laay def nan laay def. doo jug nga sol sa dàll ñu dem ci chantier ba ñu dem xooli ko foofu. yoo xanaa déggoo li ma la wax woo naa ñetti ouvrier yëpp. nee nañ depuis 17h kenn nekku fa. ah man nag maa ngi bëgg a mi nag man tonton ci nii moment fan la war a dem. ba soo ko xamee nga wax ma ko. léegi wuyu ma doo dem wax ko yaayam. ah sama yaay nga xam ne dafa gaaw a tiit te instant bi dañu am ay gan. xalaat ko waaw léegi nag kon nañuy def dañuy toog nii rek di xoole. mais di xaar ba kañ ku lay. ah maam Ngoné bàyyi ma rek s'il te plaît. ah kon baax na donc di xaar ba gën ba heure bii. ça semble relax. merci beaucoup. mais Ndella. seen fête bi mën nga ko guddee de. guddee na trop. jëne la bu lent dañu war a wàcc ñu suuf li bouge bi. waaw te dama war a xëy suba gis nga. yow guddi na de kenn werantew ga mais cendéere rek lañ doon xaar xam naa sax war na ñëw day sangu xaar leen tuuti rek moom mënoo def ndànk mënoo bàyyi moo dem rek tas ko wane fa sa bopp moo dem rek jëkk a tas bàyyi loolu. dee la bëri woo bu gato bi sax. muy gaawal balaa maa dem. yow defal ndànk ñu toog mu patience. Ja. fan nga jëm ana candeel mi ci biir candeel ah wóoruma de ah est ce que ñëwul di sangu su fekkee ñëwagul nga wax ulay anta mu ne wuyuma léegi waa baax na dinaa ko wax waa yaay na bëgg nga doom bis boo amee doom danga xam ne doom dafa neex si xol. ba tey ñu ngi lay indi ba wàcc si gan yi boobu ba tey lay xaar yow ak sa jëkkër ngeen toog si biir néeg yi doy wàcc seen gan yi laanta xaa yow laa waxal Ndella ca Ndella laa gisul ba léegi te jotuma ca Ndella danga woo jotoo ko wala la woo naa woo ba ñëpp depuis dix kenn jotu luy loolu sànq ba léegi mi ngi woote jotul kenn lu kenn ku mu jot. loolu moom yéeme na di. waaw loolu ba jàmm la. jàmm xam nga ne du jàmm kay. waaw nga bàyyi li ngay wax. présenté. waaw wuyu sama yaay. wuyu sama yaay. Am. Io mtieri manidai yak sama sense be. Matei leli meni sadam do kompani. Yo isko hol ngali ngay wax. Yo tamé ma yo ñoo bokku mbuus. Na la mëna téyé li ni di nuy sambatali wala damay tek cadeau ci suuf. Lu bay li ngay def bu yak sama sense bi. Yo nuru sama lan la nañ tek cadeau bi fi. Suñ démé ba heure joxé cadeau jot ma ñëw jël ci ko. Gaawal ñu dem. Sambatali uru ñoo jitu ci xew mi. dangaa fàttali la sëriñ bi wax. eh Penda ci biti bu doon seen sàmbatari di daw ñëw wooñu eh yaa xam ci. xanaa sax ñun ñëpp di ko xaar de muy wóor di taxawaalu. yaay Jandeer mosul nekk taxawaalukat te du xaar ba tey muy doog di nekk taxawaalu. Oulay Anta danga bëgg a wax ne kon fi mu nekk bàyyi fa boppam. déedéet yaay waxuma lool de li ma xam si moom rek laa wax te su ma xamee si moom benn yow xam nga ko ñaar. est-ce que woo nga ñi muy liggéeyandool yaay woo naa ñëpp ñi ma yaakaar ne am nañ numéro ñëpp woo naa leen mais li ma la wax rek lañ ma wax depuis ay 5 heures lañ ko gëj a gis. est-ce que tamit doo woo Saneex Samb moom war na xam fan la nekk de doo ko woo. jotuma ko woo de waaw woo ko ba xam. lay ba léegi jotoo xaritam bi tamit bu war fakkaat la nekk waaw bu dee loolu la kañ cela veut dire que ni ñoom ñaar ñoo nekk kon kay xam naa ñoom ñaar ñu ngi ci jàmm ñoom ñaar ñu ngi ci jàmm nga leen di ñu nekk bu war fakkaat loolu mënul nekk wala aussi dañoo nekk ci lu leen neex maa ngoone dañu nekk ci lu leen neex man sama jëkkër du fenkat te loolu góoru fenkat yi ñokoy def dëgg la kay waaw mais noppi mu coo yow tamit léeg mu ñew ci mi ngi si jàmm wax na la ko hmm? je sais que ni nekk si jàmm wa wa wax na la nga bayyi di wax loolu bu ko wax bayyi parce que loolu la yek arrêtez la Just تعلمش فايدة عادي عيدا ميمو متعش فايدة عادي عيدا توتي متعش فايدة متعش فايدة ماما نصابة ليلك صدقي تساجن نيوباي تاكم تيكو عادي عيدا ميمو متعش فايدة عادي عيدا توتي متعش فايدة متعش فايدة balaa ngay gën a guddee. mais finalement est-ce jàmm la. cindee la kat boobu ba tey ñun ñu ngi koy oo jotuñu ko te xamuñu ci lan la nekk. ah. loxo. ça va madame. yéen a ngi ci jàmm. bu fi yëngu ci a yàq seen budget. mais

ragal lan la ñuy ragal si man. Hmm. maa ngi gis Ndella muy yéeg xam day dem ni Ulay Anta xale bi dafa sañse su ko mu xool lu mu war a sol pour bañ la daaneel. loolu moom c'est trop tard hmm. man xale bu ndaw sama yaram a sañse bokkuma ak benn màggatum jeeg hmm. duma moromam na war ba comprendre sax. virulent problemă. Virulent. Virulent eu? Ndéla laa dégg muy wax ñoom say ne ca Ndéla xamuñu fu mu dugg xamuñu fu mu nekk kenn gis ko. dafa réer mooy lan. ca Ndéla de réer na Ndéla nee xamuñu fu mu nekk. لا أقول أنت سما خم خم دي أخلتي. أنت يا إيوان أصلاً يحجتو مكو. أهم بيسخلا مجيوة. نينا مونتا متب أي سينكر لكو كجيجو التلفن. مي إسكو دو هو جبرا ميكي خنا عم جيكي أنا نميرو. أهم بلاو. mom la woo nee ay 5 h la ko gëj a jot ci la fu jóge woo ko ba sonn may jotu ko. waa léegi lu ciy pexe. yaay xanaa ñu toog xaar yalla xëy dina ñëw si né nee na dafa nga jëm. sama mag lay dem xooli ji. lëndëm bi. yii damay dem xool jëkk ma xamna naa cëndeel nekkul ci jamm oh Ndéla jàmm rek mooy umpe géej bu nekkul woon si jàmm di ngeen ko yëg. Hmm, bàyyi rek ma dem xool ko loolu gën a dal sama ci Ndéla nekkul si xam naa dafa dafa def lu grand di def rek. lan la grand di def. jàdd. xam naa dafa jàdd rek. yow doo ma bàyyi sama mag daa bokk si yooyu. Ndéla Ndéla. ma daj yépp li bëgg ñul ni lan mo wara dal sama doom ak fan la nek ba heure bi te iya, yalla yàlla nga mo musal ci li non yow xam nga ne man sa xam-xam rek lay wóoru wa baxna na ngi dem mais sëñ dafa ñaan de instant bi dañu jahat trop baax na wax am na ku lay woo de. wax nga ne sama Sanekh Samb moom mooy woote. allo yow Sanekh lan la sànq ba léegi maa ngi lay woo jotuma la. damaa fay sama téléphone. wa gisuloo cee. ñoo ànd. ah. bu ñu ñëwee la expliquer. lan la lan xew. lan la waxuma dara waxu dara may waxi lan mais nee na ñëwee te ñu ngi ñëw ñoom ñaar blessure du poignet blessure lii là. fan yële ci ginnaaw loolu mais dama foogoon ne garaawul noonu ma ko doon négligé. waaye saane Saneex yow de yaa sa xarit bi xaw ma kan moo ci gën a texe. ah man de woon naa ko kër ga kenn sax ko ñu ngi mu ne ma kër gi dafa am fête te bëgguma yàq fête gi loolu de moo tax woote wuñu su ma amee ay mbokk da ngaa yëglu ah? lii moom bu mu leen dalati. Fatili yow tamit tital nga ma. et pourtant bañoon le tital sax moo tax waxuma la won dara nañu wacc dag gato bi libéré gan ñi. ci sa samay de. gis naa ko néegam la jaar ma ko bàyyi muy waxtaan ak Sané. ça va ça va. bien sûr. ça va. xaaral ma defaral douche ma dem. d'accord. لكن لماذا لا يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من ان يكون هناك لكن يمكن ان بمتي يكتي لكن جاب بوم جوخ لوخوبي لكن تي روس كين نك لكن يا غبا دي نوير ان شاء الله jërëjëf waaw. toogaay bi yàgg na xaar bi yàgg na ku nekk xam ne rek xaar dafa metti mais borom anniversaire bi moo amoon tuuti empêchement rek mais sant yàlla ñëw na ñu ngi jéggaluwaat bu baax a baax a baax dégg ngeen merci beaucoup lo xool ci sa loxo yi sama loxo bi mooy sama caabi àjjana foo jaar ma nuyu Samba Tali tey. di nga ko nuyu am naa ci

j'espère que épisode bi ngeen seetaan neex na leen bi ci topp nag mën nga daw léegi seetaani ko ci OZ chef ci sa biir kër ak sa biir chef Aïda. mbuutaal chef Aïda moom la ñëpp doon xaar si wala boog tànn si bu la. chef Aïda ñamal seet. resto. di gis bokk ci mayonnaise chef Aïda rek ci goût qualité sécurité ak hygiène amul dendandoo ci mim réew yaay chef